alors téeméeri fan yooyu noonu yow nga jàpp ni euh, Sénégal mi ngi si yoon fan nga teg lu ni mel si ay argument dal gi dégg benn teel teel voilà kay manifester du ma manifester ay alkaati jàpp fii déjà dal gi rek avancé bu am am solo la. ambulant yaa ngi manifester. voilà wala bokkuñ ci euh, dal gi. Euh, je pense que kooku hmm. épiphénomène la. Hmm. Euh, réew mi yëpp yëngu woon xam nga ci xam ngeen ci dara yéen journalistes yi jotoon ngeen seen wala mhm. ba ci seen directeur général mhm. voilà mi nga xam ne moo jiite RTS tey mhm. ak say yeneen naataango donc bu may wax coow li moom yéen yi am na jotoon ngeen seen wàll xam ngeen li may lan la euh, waaye surtout aussi euh, ñu gis décision yu am solo àddina mi fi ñu toll nii njëg yi ñooy yokk tubaab naan inflation ak foo mën a dem nag ci àddina bi président premier ministre ak ministre des finances am fexe ba indi wàññi njëkk kooku defe naa ne waxuñ ci sax ci lu doy. Mhm. parce que ak ak ak ak njàmbaar la quand ci wàllu économie parce que économiste la. Mhm. parce que ñun li nga xam ne moom la ñuy dundal li ci ëpp bitim réew lay joge donc bitim réew bu yokkee ay njëgam rek foog fii aussi euh, mu yokk waaye ñu am noo xam ne ni liggéeyee nañ ko ba fexe ba wàññi njëgu produit yi nga xam ne moom la Sénégalais yi dundee loolu vraiment trouve que euh, war nañ leen cee félicité bu baax a baax. parce que mm-hmm. loolu it aussi jàppale njaboot gi yëpp la euh, def naa ne seen amul Sénégalais bu ko dul ressentir. loolu